ni ki démb sa Diamniadio Moussa Bal naa teg nañ ko ci bopp gouver euh, ministère bi ñu ko wàllum euh, euh, urbanisme collectivité territoriale aménagement du territoire naka noonu it Mame Talla Ndao secrétaire d'État bu urbanisme ak logement ka leen jébal leen ngay moo di Abdoulaye Seydou Sow moom la ñu dénkoon urbanisme logement cadre de vie ak hygiène publique di na euh, ci euh, bilan bi nga xam ne man def na ko ci ñaar ci ay programme yu mu taxawloon mu di euh, zéro zéro bidonville fàq te di jeex fi waaye it mbalit mi dootu fi jaabaa jonge Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye jëli ko ci programme zéro déchet ak UCG mu daal di nekk SONAGED ak programme que zéro bidonville xam ni dafa intégré cent mille yi jëwriñ bi ci Abdoulaye Seydou Sow di jaaraat ci la nga xam ni moo di ñetti at ak genn wàll ya mu def ci boppu ministère bu wàllu urbanisme ak logement. nous avons signé beaucoup de conventions des conventions avec des partenaires locaux notamment au niveau de la nouvelle ville de Thiès. Momat Talla Ndaw di secrétaire d'État à l'urbanisme ak euh, logement ak Balla Moussa Fofana di ministre de l'urbanisme de collectivité territoriales ak aménagement territoire ñoom nag ñoo daal di war a solo euh, li nga xam ne moo di département boobe ñu ngi daal di diggee ay coppali yu am solo. à parler d'un développement endogène de notre pays. l'importance de l'aménagement du territoire le rôle des collectivités locales et un cadre urbain. gannaaw jam ñaaju ministre Balla foofu Fofana xam ni moom banquier la ci wàllu boppam moom ñu ngi ko doon xaar fële ci Ndakaaru ci beneen passation de service ci ministère bu collectivité te mu ngoog euh, Abdoulaye Seydou Sow ma ne sañ jàpp ne bokk na ci ministre yi nga xam ne euh, peut-être si li ñu leen dénkoon wàllum euh, logement ak nag zéro déchet am na liggéey bu am solo bu mu ci def. surtout côté logement yi nga xam ne digoon nañ ko askan wi les cent mille logements sociaux. xaw ma nag ndax ñi fi nekk dinañ ko continuer wu pas mais nañu comprendre ne askanu Sénégal am nañu problème mu dëkkuwaay. Mhm. dëkkuwaay boobee moo waraloon d'ailleurs zéro bidonville. mais fàq dëkk googee boo demee ay gox ba léegi ma nga fa. Mhm. parce que nit ñi amaguñu fu ñuy dëkk nit ñi également ñu bëri ñu ngi laaj lange euh, euh, euh, cent mille logements sociaux yooyu fan la ne. est-ce que pare na est parewul li ci pare est-ce que ñi ko war a jot ñoo ko jot wala dañ ko jox ñeneen ñoo xam ne. ñoo ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo ëpp wërsëg ñoom ñoo ñoo ñoo tane ñi nga xam ne c'est des cas sociaux mel ni ñun donc autant de de situations yoo xam ne faw ñu xoolaat programme yooyu ñii nga xam ne ñëw nañu également buñ ci gisee lu rafet lu jekk nañ ko fa ba jéem ko continuer wala boog améliorer ko parce que quand même logement yooyu ak programme yooyu xaalisu état bi la xaalisu Sénégal la c' est l' argent également du contribuable moom moo moom moo ko financé bu dul xaalisu contribuable bi it peut-être ci ay bor la ñu ko defaree te bor boobu yàgg-yàgg dañ ko war a fay foofu nag la peut-être euh, euh, gestion war a mën a amee solo nan la ñuy mën a def ba li fi ne ñu góorgóorlu ci indiwaat leneen loo xam ne dafay am rupture wala loo xam ne dafay consolider wala loo xam ne dafay àggali lu baax li nga xam ne peut-être amoon na fi parce que lépp quand même mënut bon lépp mënut a bon ci li nga xam ne am nañ ko boo jëlee par exemple euh, euh, zéro déchet mais góor góorgóorlu nañ ci bu baax a baax at yi ñu wéy dañ euh, heure bii def ñu daan fekk ëllëgu korité wala bés ba ca toppaat mais ñiy xool encore mbedd mi ñan ñoo koy nettoyer mm-hmm. mais depuis quelques années wax dëgg yàlla nguur gi fi jógee góorgóorlu nañ ci lu ñu mën ànd ci ak waa waa waa UCG jamono jooje ànd ci léegi ak waa Sonaged ndax dañuy anticiper ba anticiper veyu fête bi bésu fet bi ba ci ëllëgu fête bi nga xam ne yow boo yeewoo fête bi jeex na boo doxee ci mbenn Ndakaar yi benn mbalit du la sonal. Mhm. donc programme yooyee la ñu wax ne au moins yooyu même bu jekkul trop nañu xool lu koy gën a améliorer mais lépp mënut a bon mais tout à fait également d'accord que xëy na ñu indi laataan ñu leneen. loo xam ne dina mën a tax ba ñu ne kat ñii ñu ngi góor góorlu passation de service lañ toll ñu ngi doog a jot dossiers yi pour ñi nga xam ne ñoo fi ñëw bees bon peut-être nañu ne encore nañ leen may temps ñu sëgg ci dossiers yi xam li fi ne mais pour l'instant pour man waruta mën a yàgg nañu proposer ay solutions. loo am solo ñu waxtaanee kon ministère bi ñu dénk wàllum télécommunication communication ak numérique Alioune Sall moom la ñu jox euh, ngay Moussa Bokar Thiam ku ko jébal moom nag mu ngay xam ne nii euh, la mu bëgg njëkk taxaw moo di indi ay réforme coppite ci secteur audiovisuel bi euh, fexe ba askan wi mën see gën a gis seen bopp moo xam ci wàllum transport beeg santé bi ñu ma ngeen ko wax jamono jokkalante koppar gi ñu jaarale ko fa Alioune Sall ci fàttali moo jëwriñ bu yees bi ñu dénk wàllum communication télécommunication souveraineté numérique fii ci réewum euh, Sénégal Annette euh, Seck euh, Ndiaye bawoon na ci ministère bi ñu dénk wàllum xëy mi travail emploi relation avec les institutions jébbal ne leen ngay yanqoo ba jéeme loole nag ba noppi te jébbal ko fa mu jot a toll ci liggéey bi gannaaw ba mu ko dëxëñee ci ab rapport ñu ànd seex ay kàddu yu bawoo ci yanqoo ba jéeme jox na ay document yoo xam ne euh, lu mu fa bind leer na IGE gunge ñu waaye it moom mu wax ne ginnaaw bu mu amee service yu am solo ñi nga xam ne ñoom lay complété ci nuyoo bi mooy monsieur le secretaire général ak directeur généraux yi nga xam ne ñoo fi nekk directeur ak directeur généraux ak personnel bi ak syndicat bi it ak amicale des employés du ministère di wax ne kontaan nañ lool ci contexte bu ñu organiser passation bi ndax ñun ñoo woote ni dañ ko dañoo bëgg mu nekk loo xam ne lu sobre amul xumbaay amul mbumbaay kon nag euh, jébalante lenge gi ba tey sa ministère bi ñu dénk ak commerce Serigne Ngaye Diop euh, jébal na euh, lenge yi di xeex wala sa jële fi njëkk yu yi ci la ñuy faral di jëfandikoo développer politique industrielle ak commercial loole bokk na ci jéego yu mu bëgg a def ba noppi it mi nga xam ne kon loolee faw commerçant yi industriels yi xeltukat yi dugal seen loxo ngir mission boobee daal di antu mu nga fa wuutu Abdou Karim Fofana ma nga euh, xam na moom la ñu dénkoon boobu lépp euh, ministère. ñu dikkaat euh, ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum économie plan coopération ak fonction loolu nag wala sax wàllum coopération démb moom it jébbal nañu ko lengay Abdourahmane Sarr lay wuyoo bëgg-bëggam moo di mboolem lu nga xam ne jot nañu ko fa liggéey ñu jot ko téye waaye nag fexe ba Sénégal am souveraineté économique fii ci réew mi ministre bi nga xam ne moom moo fa nekkoon Mouhamadou Moustapha Abba moom dikkaat na ci euh, la nga xam ne jot na ko liggéey ci bopp ministère bi ñu denk wàllum plan coopération diggante 12 mars jàpp ñaari fan ci weeru avril atum 2024 nanga ko bakayoko Mamadou Barham Ndoye ministère de l'économie plan ak coopération mooy ministère bi nga xam ne moo rëdd plan Sénégal émergent ak yeneeni plan d'action prioritaires yi jëwriñ bi yees bi jiite boobu lay ministère ne dina sukkandiku ci lu nu jot a def ngir fexe ba Sénégal moom boppam ci wàllum koom Euh, li muy tekki mooy mooy secteur privé bu foor mais secteur privé bu foor dafa laaj état bu foor ci gannaaw euh, état bu foor boo xamante itam dafay jàppal les territoires donc yeewi askan bi ñu mënal boppam mënal seen bopp yeewi territoire yi ñu mënal seen bopp loolu balaa muy mën a nekk Sénégal ci boppam day def ay jéego yu koy permettre mu gën a dëgër finance publique ba pare mun a jàppale euh, donc. askan bi. jëwriñ bi dellu si ci yoon yi ñu war a jaar. yeewi yeewi yeewi waat mooy yeewi askan wi yeewi Sénégal yeewi gox yi ak goxaan yi ko defee ku ne mënal bopp moom boppam mënal boppam ku ne mënee mënalee boppam à ce moment Sénégal ci boppam le projet de souverainté bi ñuy wax day mën a dañ koy mën a jëmmal. noone ne ministère de l' économie plan ak coopération boole kook ministère bi ñu dénk koppar ak gafay réew mi mooy ñaari ministères yi nga xam ne ci la ñu sukkandiku mbooleem xeltu gi war ak ni ñuy jëfee politique publique yi mu ngoog Mamadou Fofana yéen kaay bi tribune ñëw na fa ñu jëm bee boo ñu waajal te xam ne dana tar lool am na ñuy njort ni est-ce que yegg ba supprimer li nga xam ne moom mooy bourse euh, euh, sociale bourse familiale bi nga xam ne jotoon nañu ko génne euh, délégué de quartier yeex chef de village yi salaire ba leen daan jox ñu daal di koy dindi ba noppi te conseil yi doon yaakaar salaire wala ndàmpaay ñu jële ko fii adjoint au maire yi ñuy lokk yokkaloon yooyu yëpp ñu daal di koy dindi bourse dindi ko fi dina doy war de est-ce que xam nga dans le Sénégal de profondeurs am na ñoo xamante ne nii seen revenu yeeg lépp boo ko boolee ça ne fait même pas dix mille francs kon tey dangay jàpp ne ne voilà la pertinence ak tamit solo si nga xamante ne nii bourse familiale am na ko même si c'est trente cinq mille ñoo ñu mun na leen mun nañ ci jàppandi parce que mënoo tey comparer ñi nga xam ne ñoo nekk en ville wala ci dans les zones urbaines ak ñi nga le Sénégal des profondeurs tey am na ci ñoo xamante ne ni pour ñu feebar faju problème la kooku mënoo ko ne CMU bi nga xam ne couverture maladie universelle bu fi nekk yow mënatoo cee jot su boobaa encore problème la man la ma gëm te mu am solo xam nga moom mooy lan moom la ministre sax bi wóotu Moustapha Ba ci économie wax na ko moom mooy question monopole mm-hmm. nan ngay jëlee suukar Sénégal nga ne wéy Jean Claude Mimran moom moo ko fi joxe CSS. kase bu doyut nga jël ay dippa jox ko ay nit ñi ñu dem euh, bitim réew uti suukar pour ñëw doo ko fi joxe loolu moom mooy lan ay quinze mille hectares nga jox ko benn nit mu fay bay suukar pour wëlbatiku jaay ko sénégalais ci njëg bu cher boo xamante ne nii sa waay suukar léegi boo laajtee ñu naan la ay mille deux cent mille trois cent francs loolu moom mooy lan loolu moom mooy xeex bi comment faire pour que ay monopole yi nga xam ne dañ koy jël di ko jox benn doomu aadama mu koy jël di bang bangee sénégalais yi hmm. loolu jeex fi exonération yi anam plus finir yu dul yi nga xam ne moom mooy am ñu xool nuñ ko wàññee wala ñu teggandi ko parce que aussi xam nga sa réew mi tant que yenn courage yi amuñu ko par rapport ak suñu politique yi man maa la ko wax duñ dem mënoo hmm. wàllum banque Sénégal daanaka amoo ci dara wàllum assurance ay étranger wàllum cimenterie pratiquement nee nañ la benn sénégalais moo ci nekk au moment où il y a pratiquement quatre multinationales yoo xam te ne nii ña mais loolu réew mi mënul kon ne du dundee noonu il faut réew mi gën a moom boppam moom mi ngi koy wax yeewi xaw ma yeewi waat yeewi effectivement il faut aller vers ça il faut ñu am courage te xam na ne ce ne sont pas ces euh, euh, la ñoom ñooy ñëw duñu ñu suñu Sénégal munatuñu nangu ay ñoo xam ne dañuy jóge tugal ñëw fii jël suñuy alal jéggaani waat ko yóbbu seeni réew ñun ñu bëgg a mm-hmm. nekk ci ndool kese loolu mënul nekk et justement loolu moom mooy wax bi il faut un bon modèle économique boo xamante ne nii dinañ mën di dépasser li jëm ci wàllum woy pour ñu mën a dund il faut ay taxes il faut euh, taxe douanière il faut nangam ak nangam pour askan wi mën a dund noo am nañ suuf am nañ naaj am nañ phosphate am nañ leneen ak leneen sa waay volonté kese moom moo fi des bu ñu nekkee ay euh, dirigeants yoo xam te ne nii ñu gëm lu ñuy wax la man gëm mhm. naa ne Sénégal war na mën a tekkeeku moom boppam sur tous les plans et loolu c'est bien possible amul dara loo xam te nii lu ci extra ordinaire la wala leneen volonté la def ci fulla ak fayda jiital la sénégalais d'abord bu ko defee je crois que war nañ mën a atteindre lu ñu bëgg lépp